sopp nabi cher jentenet yu enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook enquête yéenekaay mi del soit ci défi yu rëy yi nga xamante ni ñu ngi xaar nguurug Sénégal gi yéenekaay bi ne mouvance présidentielle bi fi mu toll nii ci nen la toog entre seen mission bi nga xamante ni moo di servir Sénégal ak lijjanti tamit ni ñuy fexe ba daal di am majorité ci assemblée nationale di beneen liggéey bu leen di xaar gannaaw ba

assemblée nationale li ni mel nag boo ci boolee benn bokk yaakaar bi nga xamante nii dafa mer ba futtoo ci daanu gi mu daanu ci élection présidentielle yi am nañu temps pour mën a booloo nekk benn pour mën a am limuk député yu sakkan ci assemblée nationale naka noonu tamit waa PDS bés bi moom def taxaw seetlu ci coow lu bari li nga xamante ni am na ci gouvernement bi féministes yi ñaawlu nañu lool limuk jigéen ñi ni ñu ñàkkee bari laa la wax ci biir gouvernement bi ndax ñoom femme leader yi jàpp nañu ne ci histoire Sénégal c'est la première fois jigéen ñu nekk ci gouvernement pourcentage bi yeggul sax 15 pour cent bi ñu dugalee parité ba léegi si mu ngi soog a am Fatou Sow Sarr di xam ne ci biir yéenekaay bi ne il faut que ci élection présidentielle nañu def ticket présidentiel boo xamante ne ni ni ñuy falee góor noonu la ñuy falee jigéen maanaam dañuy am président am vice présidente lii lay proposé ci réforme yi ñu jëm Marie Angélique Savané moom fi mu toll nii dugg na ca combat ba pétition fi mu toll nii lu ubbi pour ñu jubbantiwaat nag doxalinu gouvernement bi ndax jàpp na ne limu jigéen ñi ci nekk bariwul li ni mel nag dafay wàññi doole jigéen ñi wàññi seen njàmbarte xas la ci jigéen ñi kon nag bu ñu war jubbanti la vox populi ne li wérti wër daal mooy gouvernement bu Sénégal gii moom jublu na ci liggéey semaine bii mën nañ ko duppee sax semaine de passation de service ndax nit ki démb président Ousmane Sonko moom maître Sidiki Kaba weccoo nañu lenge yi naka noonu Jean Baptiste Tine def na passation de service am nit ki démb gannaaw nag ba ñu taxawalee gouvernement bi ci ay bés talaata tey jii moo njëkk nekk conseil des ministre boo xam ne président Bassirou Diomaye Faye dana ko jàkkaarloo ay ministres am gannaaw ba ñu taxawalee gouvernement bi yéenekaay bi ne moom président de la république bu nag muy diriger ab conseil des ministres te booy xool membre gouvernement bi ñi ci mës a toog ci table conseil des ministres sax dafa barewul à part Moustapha Guirassy Mary Teuw Niane Oumar Samba Ba ñi ci des ñëpp laa la wax mosu ñoo toog ci table conseil des ministres yéenekaay bi def taxaw seetlu tamit lan moo tax gouvernement bu Bassirou Diomaye Faye bii tànnuk bésuk talaata muy seen jour yi ñuy def conseil des ministres en tout li wéetóor moo di loolu moom question de choix la ndax Abdou Diouf mardi la jëloon Abdoulaye Wade jeudi la doon ci def conseil des ministres Macky Sall mercredi la jëloon doon ci def conseil des ministres tey jii président Bassirou Diomaye Faye mardi la tànn pour di ci def conseil des ministres comme ni ko Abdou Diouf tànnee woon en tout bi desuwaat na ci réforme yi nga xamante nii sénégalais yi ñoo ngi koy xaar rawatina nag ci diwaanu OFNAC yéenekaay bi sax di laajte lan moo tax branche bi ni mel sawaruñ pour defar ko ay réforme pour mu mën a gën a mën liggéey yéenekaay bi di xam le ne OFNAC nag soxla na renforcement Nations Unies santaane waaye yéenekaay bi xamal nañu ne kuréel gi mel nag dañ koo néewal doole de wuñ ko tafim ni soxla na ko saa mu mën a xeex mbirum corruption ca wet ga yéenekaay bi dalal Babacar Gaye di ancien ministre d'État moom mi nga xam ne ne bi gouvernement bi def ci bépp ministre boo xamante ni da yor beneen fonction nga daat ciy démissionné ca na mu gën gaawee moom jàpp na li ni mel nag choix politique la waaye nekkul obligation nekk maire ndax boobu askan bi ci boppam moo la xool tànn la moo la waroon a gënal poste ministre wala sax DG waaye nag ba tey loolu question de choix la direct news moom def taxaw seetlu ci lanceur d'alerte yi nga xamante ni commencé nañu seen liggéey tàmbalee ko ci AIBD ak LONASE yéenekaay bi def révélation bu rëy na ci doxalinu AIBD di aéroport international bu Blaise Diagne ni employeur yi fi mu tul nii laa la wax ñoo ngay dénoncé doxalinu seen DG bii nga xamante ne ni waxuma la dara sax waaye yàqum xaalis gu bari laa la wax mu nga ca biir AIBD lépp nañu teg ko ci mbiru politique dèjà recrutement yi 300 employés dong la ñu soxla woon moom DG bi recruté na lu tolloog 600 employés te sax mandat bi matagul sax un an yàqum xaalis gu métti gii nag ñoom employé yi jàpp na na lim gi ñu yokk nag ca AIBD mbirum politique dong na moo tax ñu yokk nombre bi yemuñ ca ndax nee nañu DG AIBD bi 176 milliards moo nekkoon ci taabalam ngir mu mën a defar nag aérogare ba fa nekk ay ba léegi travaux yi laa la wax daa taxaw ci jamono boobu lay def ay recrutement ci ay yoo xamante ni duñu liggéey jamono jooju tamit aéroport bu Kolda mu nga taxaw bu Ziguinchor mu nga taxaw ñaari atu yàlla yoo xamante ni dañ koo tëj fan la alal gi ñuy dugal ci aéroport yi jaar même bu ñuy xool aéroport bu Saint-Louis amul benn avion buy jugee bitim réew laa la wax di fa atterrir ndax ba léegi si amul certification lii yëpp di ay jafe-jafe yoo xamante ni war na tax ñuy laajte nag alal gi ñuy dugal ci suñu aéroport yi fan la jaar beneen DG bu lanceur d'alerte yi tamit di tuumaal weesuwul DG bu LONASE mi nga xamante ne ni ñëpp gis nañu alal gu takku gi mu def ci campagne électorale bi ñu bari di laajte fan la ko jëlee même moment nag lañ tuumaal nag ay recrutement yoo xam ne ëpp na ba jéggi dayo ca LONASE liggéeykat yu bari nag ca LONASE la ñuy ñaxtu mooy gestion bu baaxul ca LONASE jàpp nañ ne société bii bu daanoo DG bi moo ko daaneel te ñu ngi sàkku nag ci corps de contrôle yi ñu ñëw càmbar nag doxalinu seen DG bi léegi fa yéene kay ni jara càmbar kay avenir politique am du kenn ku chef de l'opposition bii di Amadou Ba est pare na pour xeex nekk ci opposition bi dëggal boppam ba ñu seetloo ne am mu rawee ñi nekk ci opposition bi sax nag dafa bari nan lay fexe ba conserver ko nag lii moo jara laajte yéenikaay bi di ñu xamal ni di ko war def fi mu toll nii mooy mu xeex xeex bay statut chef de l'opposition bii mu méritoo ko pour mu am nag reconnaissance nationale ak internationale te sax nag statut chef de l'opposition bii bu ko état bu Sénégal gi gën a valoriser dana mën a bénéficier wu ay privilèges de yu koy permettre mu gën a mën a samp nag ci opposition bi yéenikaay bi ne lu wértóor daal moo di Amadou Ba am na liggéey bu koy xaar nag ci biir APR pour mu mën a profitoo liggéey élection législative yi ñu jëm soit mu jéem a fexe nag ni jàmm di amee ci biir APR ba ndono lii Macky Sall teg ci loxoom laa la wax du réer mu mën a rattraper nag ci élection législative yi ñu jëm wala boog mu jël yoonu boppam nag gëm boppam liggéey ak ñenn ñi nga xam ne bëgg nañu liggéey ak moom am na suffisamment de temps nag pour liggéey li ni mel waajal élection législative yi ak présidentielle yi source aana coow commencé na waat juddu la wax ci loi d'amnistie bi nga xamante ni voté woon nañ ko ba noppi ci assemblée nationale am na lu tollu 220 victimes yoo xamante ni ñu ko ca bitim bu bees bi nga xamante ni taxawal nañ ko bëgguñu wax sax waxi amnistie bi nga xam ne voté nañ ko ba noppi ñoom danañ Belgique Pays-Bas ba Suède ba ci biir réew mii Sénégal ñun victime yi nga xamante ni ñun lañ toroxal yàq suñu der tuumaan ñu ñenn ñu dugal leen ci biir kaso bi ñenn ñi sax ñàkk ci seen bakkan dinañ topp dossier bii ba justice ñu daat koy def ndax duñu bàyyi mbir yi nag muy sedd jamono ji ñi wax ak yéen 220 plainte compté gum nañ ko ca bitim réew lépp ñeel nguurug Sénégal ndax jàpp nañ ne bu fekkee ne baale day am ñoom ñoo waroon di baale te baale ndax ñoom lañ yàq seen der ñi ñàkk ci seen liggéey ñi ñàkk ci seen cër ñi ñàkk ci ay jour ndax nekkoon ci biir kaso bi am sax ñoo xamante ne nii seeni njaboot ñàkk nañ ci seen bakkan kon nag buy baale di am ñoom ñoo war a baale te baale wuñu justice la ñu bëgg te dinañ ko topp nag ba xam fan lay wànnanti mujjee ki bëtam <laughs> ñu mënoo sant mu ne wele yàlla baax na ñi yéen nag jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm incha allah